Bignona ñëw Casamance fekke bis bii nii ñun nag dañoo bokk ci ñi nga xamante si nii ñun ci ñi mën a combat bi lañ bokk di wax suñu rakk yi à chaque fois bokk leen ci combat bi bokk leen ci combat bi kon suñu rakk bu ñu bokkee ci combat bi ba bis ñëw ñu daanu bis bu ñu leen di ñaanal yoon la ñun ñëpp ñu ñëw taxaw may ñaan ñi fi teew ñëpp lot naa ci lool lool lool lool may maa ngi ñaan ñi fi teew ñëpp ñu jug taxaw ngeen baal ma ngir yàlla ak yonent bi man maa leen ko ñaan ñi teew ci jotaay bi yëpp nañ jug man maa ko ñaan sama sëriñ yi yëpp nekk fii lottu naa lool ci loolu mais dañuy ñaan ngeen tàccu waa m bu baax ñoom laa bëgg ngeen tàccu ma leen m ngeen tàccu leen bu baax mdd dañoo am si yéen yaakaar dañoo am si yéen yaakaar dañoo bëgg ngeen promettre ñu que suñu rakk yi suñu rakk yi daanu pour ñoom du ngeen mës a tas pour ñoom xeex bi ngeen porté di ngeen ko continuer jusqu'au bout parce que yéen da ngeen a woote combat bi ne di ngeen ko continuer di ngeen ko àggale jeunesse bi yépp topp seen ginnaaw parce que yéen ñëpp ay hommes de valeur et femmes de valeur ngeen ku leen xool déglu leen topp seen ay discours ay euh, Moustapha Guirassy dama koy déglu muy wax ci ay euh, ay ay Serigne ci suñu euh, ci suñu wàllu culture ci suñu wàllu identité culturelle may xool di gis suñu Serigne Serigne Baara Serigne. moo Modou Bousso Dieng ñu am ci yéen yaakaar Guy Marius Sagna tàccu leen Guy Marius Sagna génération bu mel nii musuñu ko am musuñoo am génération ay hommes de valeur ay femmes de valeur yu mel nii dañoo am si yéen yaakaar dañoo jooy dañoo sonn dañoo dee ci géej gi ba ñu ñu ngi waaj a jeex suñu rakk yi dee suñu rakk yi daanu yéen su ngeen jàppoo ñoom seen yaram fi ñu nekk seen yax dina sedd dañ leen ñaan ñoom Barthélemy yéen a ngi dégg jëw bi dégg dégg ngeen bët bi leen jeunesse bi di xoolee yéen ngi koy dégg dañoo bëgg ngeen jàppo génération bu mel nii mosuñu ko am dañoo am ci yéen yaakaar bis bu ngeen jàppoo yéen ngeen jàppoo opposition bi ngeen ànd ngeen jàppante affaire u égo yi affaire u euh, ambition personnelle yi ñu tege ko de côté Sénégal kese tax leen a jug bis bu ngeen ko defee jeunesse bi du ñu am jeunesse bi du ñu am déception te jeunesse bi instant bi dañ leen abusé Sénégal peuple bi dañ ko abusé dañ ko yàgg nax dañ ko yàgg a trahir ba deseetul dara yaakaaroon naka ni politique jeex na Cheikh Bamba Dièye ay homme de valeur ay Cheikh Tidiane Dièye ay homme de valeur munu leen a trahir combat bi dañoo am confiance ci yéen dañoo am confiance yi ngeen jàppoo les ambitions personnelles ñu jël ko teg ko de côté ambition collective bi mooy le Sénégal mooy le drapeau dimbali leen ñu yéen waa m bu leen mës a tàqalikoo àndandoo àndandoo leen yéen ñëpp ay leader leen ku ci yéen mën naa jiite Sénégal ku ne ci yéen mën naa ngeen jàppoo sama gaynde gi président Ousmane Sonko dama bëgg yéen ñëpp ngeen tàcc ko jàmbaar la joxe na li mu waroon a joxe jaar na fi mu waroon a jaar mel na ni mu waroon a mer Afrique yëpp ñu ngi geestu di ko tàccu Afrique yëpp ñu ngi naan xeetu leader yi la ñu bëgg te li ñu gis ci président Ousmane Sonko moom la ñu gis ci ñii mu àndal façon njiit yi lañu ñu soxla woon façon njiit yi bu ñu ko amee Afrique day décoller dem yoonam parce que ñun yàlla dañoo bénir. lépp loo xamante si nii continent bu ko amee mooy raw ci àdduna yàlla may nañu ko may nañu ay richesse may nañu ci suñu suuf or jamaa petrole may ñu soleil may ñu ay jeunesse yoo xam ne mën nañoo bay lépp yàlla may nañu ko mënuñoo sax faju suñu hôpitaux yi baaxul lekkuñu ba suur dañoo toog amatuñu espoir moo tax booy jaar ci géej gi di dee suñu rakk yi suñu rakk yi damaa bëgg seen parents yi lu metti la nag nga ñàkk sa doom mais damaa bëgg fépp fu ñu nekk ci Sénégal am na ñoo xam ne Dakar lañ jógee ñun ñoo ànd ñëw am na ñoo xam ne fii la seen parents yi nekk damaa bëgg fépp fu ñu dëkk ci Sénégal ngeen leen di xoolee ñii nii ngeen leen di sargal ngeen leen di respecté ngeen leen di jàppale saa yu seen rakk rombee wala seen sœur wala seen nijaay wala seen papa wala seen yaay seen xel dem ci ñii ngeen sargal leen parce que ñii ay martyr lañu te dañoo génn doon xeex. àq ak yelleef démocratie seen réew jëm ci kanam ba seen bakkan rot part kon ñii mën nañoo wax que ni ay nitu àjjana lan jërëjëf donc maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant maa ngi maa ngi encore une fois wax ci sama président Ousmane Sonko xam nga côté sud bi dañ leen a waxal seen jëw mooy ay nit yu am di dignité ngeen mooy ay nit yu am yar ngeen boo waxee ñu ne ñu dëkk sud bi bëgguñu ko leen saaga parce que ñoom duñ saaga waajur kenn. ay nit yu baax ngeen bu ñu Sénégal référé woo ci yéen bu Sénégal référé woo ci seen ay valeur billaahi danañ am danañ am société bu bu jub société liggéeykat société bu am jom donc yéen waa sud bi man maa ngi leen di delloo njukkal bu baax delloo njukkal président Ousmane Sonko la jeunesse sénégalaise debout la jeunesse sénégalaise la jeunesse sénégalaise la jeunesse sénégalaise merci beaucoup